sant yàlla ñu may ñu teew fii euh, di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo organiser ndaje bi nga xam ne ci ñetti fan daanaka ajjuma ba léegi ñu ngi lëlu fii di waxtaan ñoom ci li jëm ci assemblée nationale bi mooy suñu député yu bees yi nga xam ne euh, ci coobare yàlla mu jaarale ko ci wotu sénégalais jox nañ ñu ci cent trente cent soixante cinq muy la am solo ñuy dellu di gërëm askanu Sénégal waaye dinaa ci dellu siwaat ndax dama doon xaar ba conseil constitutionnel génne résultat yi ma doog a def point de presse pour euh, jaajëfal réew mi waaye surtout waxtaan ak ñoom ci li ñuy dëgmal ak fi ñu jëm waaye jàppoon nañ ni balaa sax ñuy dugg ci élection yi laa ne ay bu ñu duggee ci élection yi balaa sax résultat yi di génn la ñu jot a xayma ci li ñu war a ci député il faut ñu yóbbu leen euh, ñu dem ñu waxtaane li nga xam ne mooy assemblée nationale ndax ñu ci bëri ci ñoom six cent trente yi defe naa gën saa gudd une vingtaine ñoo nekkoon assemblée ñu ci des ñëpp député yu bees lañ donc baax na ñooñu ñu mun leen a tàggat ci ni mu gën a gaawee ba bu ñu ubbee assemblée rek ñoom dinañu xam déjà la ñu war a def ak nu ñu ko war a defee. kon ñuy félicité Ayib ci ak équipe yi mu liggéeyal yépp ci partie bi waaye di félicité également di remercier ñi nga xam ne bàyyi nañu seen jot bàyyi seen lépp ñëw jàpp ci liggéey bi indi seen xam-xam ak euh, seen temps pour participer ci formation boobu doyen Mamadou Diallo ngi nii juriste yaa ngi fi euh, ñoom maître Ndiaye ñoom maître Mbuub ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp ñëw nañu jàpp ci liggéey bi. te jàpp naa ni ci li ma dégg fii ñoom ñi nga xam ne ñoo ñoo bénéficier ci formation bi am nañ ci satisfaction bu baax kon lii buñ ko defee nag li muy firndeel rek mooy wax sénégalais ni assemblée nationale moom bu soobee yàlla bés ni ki tey dinañu xam lan mooy njëriñu assemblée nationale ci réew mi mooy conception ñu ci amoon ni assemblée nationale amul solo amul njëriñ dañ fee bu ay nit di leen fay xaalis di leen jox carburant te kenn xamul lan mooy seen utilité ci réew mi loolu moom bis ni ki tey jeex na te parti bi dina fexe ba muy assemblée nationale muy beneen institution li nga xam ni moo taxoon ñun ñu sonn ak di xeex li nga taxoon li taxoon ba Sénégal yu bari soobu ci xeex bi ba ñenn ñi seen bakkan rot na ci ñenn ñi seen liggéey yàqu na ci ñenn ñi dugg nañ ci kaso saa su ne rek ci li ñuy def suba ba ngoon jot ci li ñu yàlla dénk ne méngook loolu parce que loolu rek mooy tax loolu rek la mën a delloo njukkal ñooña loolu nag day doore ci assemblée nationale doore nañ ko ci pouvoir executif bi ñu koy rek léegi teg ko ci jub jubal ak jubbanti ci njiital président Bassirou Diomaye Faye waaye ñëpp xam nañ ni kuy gouverner. soo yoree pouvoir exécutif tam soxla nga assemblée nationale sinon dina xaw a jafe kon loolu dañ koy wéyale ci assemblée nationale bi mooy député bu ne saa su ne na càmbar boppam digganteem ak boromam càmbar boppam digganteem ak projet bi càmbar boppam digganteem ak Sénégalais yi ba xool ndax lañ ko bëgg a def loo méngoo na ak liy yoon wala déet doo ko def parce que neex na Ousmane Sonko loolu du cëru député dinañu am nag dynamique de group waaye file groupe bi mi ngi méngoog projet bi wasalaam bu ko nekkul député bu ne war na mën a ni lii gisewu ma ko noonu parce que gëwma ni luy defar na dafay yàq mais surtout surtout ñu dundal assemblée bi assemblée boo xam ne lay jóge ci loi jóge ci exécutif ñëw moo ëpp téeméeri junni yoon li nga xam ne mooy jóge ci député yi loolu firnde la yenn saa yi ni assemblée bi liggéeyut te assemblée bi it dafa war a dimbale nguur gi bu dee ñoo bokk parti politique assemblée dafa war a dimbale nguur gi mooy lépp loo xam ne cër bu ñu jox assemblée la mun a def ay question écrites ay questions d'actualité pour leeral ay yenn mbir yi pour soññaat yenn kilifa yi muy ministre muy directeur général muy premier ministre loolu assemblée da ko war a def doon rôle boo xam ne rôle bu permanent la tekkiwul da nga bëgg yoole ki nga bokkal parti waaye loolu moo tax ñu yóbbu la assemblée nationale te bu ko as député yi defee dina tee dina wàññi njaqare bi citoyen bi mun a am parce que su citoyen bi amul information rek mën nañ ko fabriquer wala ñu jëlee ko feneen mais si la l'assemblée fonctionne correctement dina am benn contradiction interne buy permettre nit ñi am la bonne information li ñu bëgg ci transparence ñu am ko parce que transparence bu amee rek citoyen bi xelam dina dal te su xelam dalee ci nguur yi lu ko nguur gi laaj mu mu fekk ko si soo gisee yu bari yu am suñu réew yi mooy citoyen bi dafa jàpp ni nit ñi dañ leen di nax ba falu bu ñu faloo ba pare tëj lépp mu def ki benn boite ñoom xamuñu lu xew ñu naan leen milliards jaar na fi nit ñi lekk nañu lii nit ñi détourné nañu lii jaay nañu petrole bi jaay nañu gaz bi mais tey assemblée nationale bu meloon ni mu war a mel coow bi ñu am ci pétrole ak gaz du fi am normalement. te loolu yëpp ci seen rôle la kon bu ñu jàpp ni assemblée bi bokk na même coloration politique ak exécutif rek day ñëw nekk assemblée boo xam ne tàccu la fi nekkee ak nelaw ak yeewu sénégalais yi wóolu nañ leen pour yóbbu leen assemblée nekkal leen fi sénégalais yi balaa ngeen fi nekkal ma Samba ak ma Demba bu dee nag ñun ñëpp fexe nañu ka nekk exécutif ka nekk législatif ak ka nekk feneen bu ñu fexee ba ñoom ñëpp nekkal fi sénégalais yi defe naa. ànd bi day yomb rek et dinañu am résultat yi ñu bëgg kon ñu ngi leen yi féliciter yéen ñëpp ci seen élection et remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce séminaire Moussa Dafé, le secrétaire général du parti, également élu, et toute l'équipe qui a travaillé avec lui. Je remercie également tous les participants, les formateurs, le doyen Mahmoud Lamine Diallo, tous ceux qui ont animé des, des modules et qui ont permis aux élus, de bénéficier d'une première d'un premier de formation qu'ils semblent avoir tous beaucoup apprécié sur toutes les thématiques relatives à l'Assemblée nationale, l'installation de du bureau et des autres organes de l'Assemblée nationale, porte la loi de finances, euh, le contrôle de l'action du gouvernement euh, la Haute Cour de justice, toutes les questions ont été traversées et ce n'est qu'une qu première formation qui sera suivie, Inch'Allah, régulièrement d'autres séances de formation. Si on a fait ça, c'est pour euh, mettre l'accent dès l'entame sur l'importance que nous accordons à cette institution qui me semble être centrale, me semble être le poumon de la vie démocratique d'un pays C'est pourquoi j'avais dit d'ailleurs dans le débat qui avait été agité sur euh, le statut du chef de l'opposition que c'est la représentation parlementaire qui, en principe, doit déterminer le statut du chef de l'opposition parce que le débat politique se tient de manière continue au-delà des élections à l'Assemblée nationale. Et nous nous considérons que l'Assemblée nationale doit enfin euh, être rehaussée au niveau qui devait être le sien depuis très longtemps, indépendamment de, de la de l'identité de la de la, la, de dire de la convergence des identités politiques entre des colorations politiques entre l'Assemblée nationale et l'exécutif, le député est avant tout un député du peuple. Et même dans cette configuration-là, le député est là pour servir un projet le projet que nous avons tous en commun et pour lequel nous sommes beaucoup battus. Et je pense que les députés ici présents comprennent très bien cet enjeu et sauront être fidèles à ce projet, indépendamment des enjeux, pouvoir être toujours au service du projet, c'est-à-dire être au service du peuple sénégalais. Cette Assemblée doit réconcilier les Sénégalais avec l'organe parlementaire, qui est conçu comme un appendice simplement, euh, un lieu d'applaudissement, comme ils appellent ça. J'exhorte chacun et chacune de ces députés à ne jamais oublier pourquoi il a été envoyé à l'Assemblée par le peuple sénégalais et être au service évidemment de la nation. Donc, je n'avais pas envisagé de faire une sortie tout de suite. J'attendais la programmation des résultats définitifs par euh, le Conseil constitutionnel pour m'adresser aux Sénégalais, pour les remercier d'abord de la confiance qu'ils ont accordée à la liste mais également pour dégager un certain nombre d'orientations. À partir de maintenant, où les leviers de les vrais leviers de la gouvernance nous ont été confiés, dégager un certain nombre d'orientations sur les semaines et les mois à venir. Mais c'était important d'organiser cet atelier et les échos que j'en ai qui sont rapportés par l'ensemble des députés, mais également par ceux qui ont animé ce, ces différentes sessions, nous rassurent qu'on a eu raison de le faire et que régulièrement le parti s'organisera pour pouvoir euh, réitérer ce genre d'exercice, de, pour que l'Assemblée nationale, comme on l'a dit, puisse se hisser à la hauteur qu'il faut, rattraper le gap qui peut-être fonde cette impression d'asymétrie par rapport à l'organe exécutif et qui l'empêche de pouvoir vraiment jouer le rôle qui est attendu, c'est-à-dire le rôle de contre-pouvoir quand il le faut, mais le rôle d'accompagnement surtout la, la, formalisation, l'exécution des politiques publiques par le vote de la loi. Toutes les lois, loi de finances, loi ordinaire, mais également par un certain nombre de mesures d'accompagnement. Voilà ce que je voulais dire, je ne vais pas être très long, car je souhaite à chacun et chacune des députés ici présents un bon retour chez lui, et surtout beaucoup de courage, parce que, euh, vu la configuration des choses, il faut s'attendre à une accélération dès l'installation de l'Assemblée nationale pour euh, pouvoir voter le, la loi de finances initiale, mmh. initiale avant le 31 décembre et accélérer avec beaucoup d'autres projets qui sont déjà préparés, conçus et qui n'attendent que l'installation de l'Assemblée pour être proposés.